nguuru Sénégal jot a dugal ci ay université privée ci ay filière yu ñu saytoo ko tënk ci ANAQ-Sup ak CAMES gunge googee nag nar diir ñetti at loolee nag dafa bokk ci programme placement des bacheliers bi nga xam ni rek nguuru Sénégal moo ko taboon ci atum 2013 wante loole nag mujjee rek ndax képp ci atum 2018 ñu sukkandikoo ci ki jiite enseignement supérieur ci privé bi. yóbbu nañ ci école privée yi li ñuy maanaam sept cohortes étudiants ñi xale yi am bac am na une partie bu ci yóbbu xale yi am deux mille mille bac 2014 2015 2016 2017 ba 2018 ñi ñu ñi état bi mujj yóbbu temps ci école privée yi mooy bachelier 2018 yi. ginnaaw bu ñu dakkalee boobu boobule programme nag laaj bi mooy ndax université publique yu nekk ci Sénégal am na ñu mën-mën ak moyen yu mucc ayib ngir gàttandu yooyu leen dongo yu jot a yor seeni ay lijaasa. à partir des bacheliers 2019 ba léegi université publique yi. ak école publique yi ñoom ñooy absorbé bachelier Sénégal yëpp. parce que 2019 ba tey état bi envoyé wul ci ci école privée yi. te structure publique yi université yeeg école publique yi ñu ngi absorbé bachelier yi état Sénégal di am. wante idem fan la bor bi université privée yi doon toppee nguur gi toll. dama leen ne programme boobu 2013 la commencé woon ba 2018 donc état bi fay na de 2013 à 2018 2018 sax jeex na parce que facture 2018 2019 yëpp fay nañ ko. programme bi nag ñu taboon ci atum 2013 dafa doon rek tax nguur gi ak njiit ñu dénk wàllum njàng mekk njàngale mi di mën a rek yóbbu yooyu leen ndongo yu jot a yor seen lijaasa ca université privée yi bile programme nag ñu mujjee ko tëj ca atum 2018 te la ko waral nag bokk na ni université publique yi tabax nañu leen ba ñu mucc ayib ba mën a gàttandu ak a dalal yooyu la étudiant wala ndongo yu doogay am seen lijaasa di baccalauréat